Allah asalaamaaleykum wa rahmatulah. xalifa koy defee di nuyu ak ziyaara Serigne Cheikh xam ngeen ne màggal gi leen leen du la jump ndax da ngeen ci ànd ak équipe bu Daara ji Vision la chaîne de nos valeurs ngir ngeen mën a découvrir nag naka la màggal gi di doxee fii ci diwaanu Touba Darou Khoudoss ci ma ne noonu mooy nekk nga xam mooy chef cuisine bi nekk ci wàññi jiite mboolem loo xam ne rek mi ngi nekk ci ci ci wàññi ci wàllum togg moom muy moo ko jiite kon mbokk yi sama waa ji incha allah macha allah fan ko di yow yow yaa jiite wàññi nga xam ne wàññi fas na toog bu ne wago ko toog tey ci lu toll nan ci ñaata saako ceeb wala ci ci ci ci ci ban quantité ci ngeen di añ bi ak reer bi mu jaar yoon mu ko suñu bëggee waaw di wax ne sant mboolem ñoo xam ne ñoo xam ne ñoo xam ne ñoo ànd ak ñoom ak soxla defal bu ñu yëpp bu ñu xëyee ba léegi ñu ngi macha allah ñu toll ni ci fukki mën xam ngeen ne loolu war naa mën a màggal màggal comme ni ma la ko laajee ci ci ci yan yan yan yan xeetu gàtt ngeen rey tey ci ci ci jëm ci gileem wala nag wala ci yan ngeen def pour añ añ nag Thank you. lépp ngeen jàpp leen rek nga xam ne ndax xeeti xeeti xeeti ñam yi ñoo bokk ndax xëy na euh, mën ngeen a togg lii ngir sëñ bi wala ngeen togg lii ngir tànn bi wala ngeen togg lii nga xam ne invité ñi ñoo ko war a ajee ndax togg yëpp yooyu kon la nga xam ne moom ñu yóbbu ci wàllu sëriñ bi am na ñu ko defee waaye ne ñoo leen am na leen loo xam am wala ñëpp façon boobu am na yoo xam ne noonu lañ ko war a def ci taalib yi ak tamit. waaw mbokk mi naan am nañ ko xam. waaw loolu tamit suñu xam ngeen ne ci benn bu nekk dañ leen ko indil ngir ñu bégal leen ni kenn ku nekk nag yaa choisir comme na ko waaj waxee woon ci ah, kon nag ngeen xam ne ah, kon ah, léegi tey rek ñuy jëm ci añ bi ndax ñëpp danañ man a añ ci benn heure bi wala ñii dañuy xaar ñii añ ñii xaar wala lépp préparé ngeen ko ngir ñëpp mën a toll ci deux cent yeneen yi nga xam ne ci daal ñu xam bu ne dañu koy daal di daal di am ay mbokk yi mën a xam ñoom naka la ñuy dundee fii ci wàllu ak màggal bi incha allah jërë ngeen jëf tey ñu des ak yéen ci waañ wi waaye ànd ceeg suñu mbokk yi euh, jigéen ñi ndax xam ngeen ne euh, góor mënut a dem sans jigéen waaye it ñooñu dañoo bokk liggéey bi euh, kii ma jàndoon mooy ki nga xam ne mooy présidente jigéen ñi ma bàyyi leen mu jël micro bi macha allah yow yaay président jigéen ñi képp nga xam ne dafa nekk jigéen ci wàll bi yow ci si ginnaaw lay toog naka ngeen di liggéey liggéey bi ak ànd ci góor ñi ba ñëpp ñu jaar yoon nga xam ne moom liggéey bi jigéen ñi nekk fii góor ñi nekk fee ngeen liggéey bi mën a jaar yoon yaakaar naa di yomb ndax yéen yéen a liggéey liggéey bi yëpp wala dafa am loo xam ne yéen ko def góor ñi koy liggéey wala yéen da ngeen liggéey nii góor ñi liggéey nii makhluk ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami menerima perbuatan yang tidak berdoa dan dan dan yang yang yang naa jox leen yoon nu dañuy ini yang ñoo ko nangoon sëriñ bu baax woon demal Mbàkke mosul ne xiiloo mosul jëkkoon ci maana woon mosul wàññi Mbàkke daawul werante daawul jàppante danoo jaboote ñun ñu ko Mbàkke da daana woote ñu mu jaboote ñun ñu ko baax di bañ ñu fàtte farata yeeg ndax ñun ñu àttee

war a taxaw ne ingénieur ci bâtiment bi nag Mbacké dana ma doon gouvernement bi gouvernement ak sama di taxaw yu tànn jaamu ak salaam waaye jiite mu war a dina ñaan sa bi dina ñaan ak ànd ak ak yéen ñoo ko ñu bàyyi xëy na ñu wantal ñu ne la ana yu naan ñu mën ci ànd ak ñu nga xam ne nga xam ne moom la ñu wantal ñu ana sa bi yaa ngi ci boobaa am na màggat ci yeneen i programme

sant bu baax suñu kilifa bu baax di ko këram di sëriñ si xam suñu Mbàkke Madina kon nag ñu nekk di sëriñ suñu Mbàkke Madina ñu dénk ñu lépp loo xam ne moo amoon ci café bi ñu tàmbali ko nag dem ci bisub siyaar bi nga xam ne day am ci kër gi mooy siyaar boo xam ne yaakaar naa fi ñëpp ñu fi daje ñu fi daje ci ay daayira yaakaar naa war naa euh, euh, am da nga dana dana jar dana waaj dana jar a wu rëy. Ah, ci waajtaay boobu ngay laaj ndax euh, li ngeen soxla ci quantité café a am ngeen ko sëkk ba nga xamee ne ñetti fan yooyu da ngeen mën a am li ngeen soxla lépp ci wàllu yàlla weer te weeru koor ci lañ tàmbali liggéey bi ñi nga xam ne ñoo seq liggéey bi lu ci nekk ñu wax na loo xam ne dañ koy jaayante ci café gi dañ daje ba toll na ci somme boo xam ne xëy na ci lañ jënd café ñu jënd ci euh, suukar boobu ba tey nag li ñu li ñu segg ci café démb segg nañ ñaari mbir café te joxe nañ lépp suukaree saako tey jii ñu ngi nii segg nañ bëri na café te saako suukar ngi nii taxaw te laalaguñ ko kon loolu defe naa buñ ko eh, defee ci bisu tey bi yaakaar naa dañ ko am nañ ko bëgg jërëjëf eh, gannaaw loolu eh, kon ndax séddale gi ngeen di séddale dana am ay jafe-jafe am jot ndax mbooloo bu toll nii nga bëgg leen a séddale ñëpp ñëpp ñu ñu ñu daan defee waaw séddale bi dana am jafe-jafe mënta ñàkk waaye nag eh, yàlla dogal leen organisation bi nga xam ne organisé na eh, bokk na ci ñu dimbali ba jafe-jafe yi du bari ndax eh, démb dañoo daal invité woon suñu mbokki donge ñuy donge terbiye yi di donge laxasaay yi ñu ñëwoon di ñu jàppale ci moo tax démb liggéey bi macha allah yaakaar naa li ci am ci ay jafe-jafe bëri. jërëjëf gannaaw loolu kon ndax ban heure la ñuy mën a ndax ndax ndax mën ngaa ñëw rek ñu xëy na café nga naan dafa am heure yoo xam ne ci lañ ñu café bi doon mën a génn. waaw café gi nag am na heure. waaye nag ku ne xam na café ci ñaare ñun niñ koy defee sax waaw am na heure waaye nag heure boo soxlaa café waaw am na heure boo xam ne yëpp ci la ñuy suba gi. macha allah kon ba waaj ngeen ba yaakaar naa jafe-jafe gi. ma lay laaj ba xam. wala kafi kafi dong la. wala sax ba ngeen cee yokk wala. kafe rek. dana ànd ak. ah. bu ko waral ñu wóor la sëriñ mu ngi te ngeen def bu dee jëmbaar daanaka ko loolu yëpp ñu wóor la ñu ay transport yu ñu loxo ba tam bisimilah jërëjëf macha allah ah, waaw kon dégg ngeen li nga xam ne moo jiite wàllum café gi fii ci Euhlou Café kon yaakaar naa jafe-jafe café dana ñàkk fi nga xam ne moo di màggal Serigne Mbacké Madina ji ah, gars yi kon café gars yi loolu ah, waaye nga xam ne moo jiite café gi mi ngi nii li mu leen wax nag ci yaakaar naa war leen doy kon yaakaar naa kenn du fi jàpp li nga xam ne jërëjëf ñu yéwén day dem ci bi الخير Muhammad ka kalbe sëñ bi la ñoo nekk ci këram ah ñu ngi ci kër ah jàmbaar la ñu